chers amis internautes de 3W Senclic.com je m'appelle Souleymane ci caméra bi euh, capitaine lañ koy wax tey maam euh, ki nga xamante ne artiste bu mag di xel di doy nekk fii ci Grand Yoff tey euh, mooy association des comédiens de Grand Yoff mu ñëw ñu gis ko ti ñu ciy sargal kii nga xamante ne mooy Rouba Seye di meilleure ki ñu ciy waxal nag dañu am mbégte contenté suñu papa la suñu xarit yàgg nañ ko ci télévision yi ci série yi joué na moom jaar na ci Mbettel joué ci Popé Marichou ak série bi nga xamante mu ci daw nafe mooy pas bi ngeen di faral gis mu nekk Serigne ne moom Serigne Ndiaye nag waaw père maa ngi fay naa la Souleymane. waaw maa ngi rafet lu maanaam tey seen taxawaay yéen ñi ba pare euh, di xamal ni lu bësee tey suñu teewaay ji moom moo ko waral ndax euh, li nga xamante ni moom la xewle tey muy sargal jigéen. dafa tombeek maanaam démb lañ doon def maanaam euh, journée mondiale de la femme donc kon lii dafa tombeek moom kon nag dafa dafa nekk li nga xam ne Rouba daf ko mérité ndax Rouba euh, artiste comédien yi nekk grand yi xaar yàlla ñoom ñëpp daf leen a bool Rouba amul xeej ak cher donc kon lu mu am ci théâtre rek may damay ne mérite la ndax man dama jiite troupe muy xel du doy waaye association de Grand Yoff moom mooy président Papis Sonko mi mooy euh, secrétaire général donc kon Rouba su wootee lu mel nii ñun ñoo war a jiitu mais quand même xaw nañ ko yéex a yëg ndax bu ñu ko yéexloon yëg kon mbooloo mi tur yëpp ñu ñëw ndax kii lii tey kenn war ko woon dafee mais a yéex a yëg moo tax xam naa ne moom tamit waaju ko loolu moo am loolu moo tax mu demee nii mais nag ñu ngi sant yàlla baax baax di ñaanal Rouba li muy wut ci théâtre yàlla na nga yàlla defal lu kawe njortam ñun nag ay mag lañ nekk ñoom comme ni nga ko waxee rek bon ñu ngi jéem ci théâtre bi wax dëgg yàlla euh, xëy na defaguñ ci fi ñu war lu lu ñuy coow waaye nag te ñu ngi ànd ak ñoom ruba rek ñu ngi am yaakaar ndax man su ma demee mbetteel ruba moom ko njëkk yóbbu. na ko euh, jiite yow di xel boobu fi def xepp sa mbokk donc ñu seetaan ko ba benn instant euh, depuis boobu gisuñu la gis yow personnellement en tant que jiite groupe ci yenn série yi daw ci télévision yi bu gis troupe lan waaw li ko waral euh, du dara dama bëgg xale yi ñu xam ni rek euh, yëf yi gaawul théâtre bi ci yombul ah. maanaam dafa laaj patience il fallait ñu dugg ci def ndànk-ndànk te xam ni étape par étape la. Euh, loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam théâtre dañ ko war a jàng suñ ko jàngee euh, yàlla dina def ñëpp mën a dem ci kaw mais bu ñu bëggee jóg rek egg ci kaw du dem te loolu mooy li nga xam te ne mooy yàq théâtre kon ñëpp ku si jóg rek na nga def ndànk soo demee ànd ak ay mag yoo xam ne ñu la jiitu ci théâtre toppal seen ginnaaw di leen laaj ñu di la wan. soo gisee nag taxawaay boobu lu mel noonu rek moo ko waral man nag ah xëy na benn sens bi ma amagum ñu di ma woo may dem si yenn yi euh, loolu ndogal suñu borom rek la waaye du njàmbaate du dara xale daal dinaa am benn conseil bu ma leen jox mooy na ñu def ndànk ndànk topp ci ginnaaw mag ñi ñu di leen wan yoon xale mun na ñëw gën a xam mag bi de su boobaa mag bi na nangoo topp ci ginnaawam rek man li may doon doon mag teerawul su ma gisee xale bu ma ëpp xam-xam ci aar bi damay ñëw topp sa ginnaaw laaj la pour nga won ma donc loolu rek moo fi nekk amul leneen donc moo waral rek standby bi ñu def nii toog di xaalaataat tuuti mais yàggul dara nañu ñëwaat ok Sonko moom wax dëgg yàlla dëgg yàlla sax mi ngi may soññi moom ak euh, ñoom daam Dame ñoom ñëpp dëgg yàlla sax ñu ngi may soññi pour ñu commencé waat yëf wax dëgg yàlla xam naa ne du yàgg dana ci nekkaat ñoom Pape Mor yaa ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi may soññi daal kon nag yàggul dara lañ commencé incha allah. ok merci dégg nga Pape bi nee na stand by bàyyi ñoo branché mais tey bu ñu wax ci théâtre Graaf dañu gis que ni Graaf am na ay théâtre kat mag yàgg nañu am ndaanaan yàgg nañu am ay ndaanaan ci wàllu théâtre tey fu mel ni la moom ak keneen bu bësee yi nga xamante ni moom moo war a bës ñu ngi koy sargal euh, dañu gis

Rouba Seye mi ngi fi dañ naan doyul mais tey fu artiste yi egg ci adduna bi rek Rouba mi ngi koy lamaraan a Diallo xam ne ni daaray Kocc la jaar te daaray Kocc yaakaar kenn du ko tudd di wax euh, ñàkk xam-xam ci théâtre bu ñu wax xam xam théâtre rek yaakaar naa daaray Kocc moo tax ñu koy wax te Lamarana foofu la jaar te Lamarana tam mi ngi dégg naa yoon yaakaar ni rek euh, organisation moo xaw a def mais war nañu mën a toog defaruwaat waxtaan ak suñu biir gën a gisaat yoon bi te jàpp naa ne bu ñu ko defee rek dañuy dem ci kanam mais pour man daal aar bi deewul ñi ko war a doxal ñi ngi fii muy Rouba ak Lamarana fii ci Grand Yoff la man du ma d'accord kenn tudd ci benn artiste boo xam te ni bu ñuy mën a wax la te bàyyiwuloo ci Rouba ak ak Lamarana ñoom ñoo fi ñu dañuy topp seen ginnaaw rek kon ñoom man li ma leen di ñaan mooy nit ñi dajalaat xale yi suñu ñëwee dajalaat xale yi ñu continuer def suñu liggéey Euh, yaakaar naa ne rek ne bu ñu ñëwee rek euh,